mbokki taalibe yi mbokki jullit yi gannaaw siyaara ak balwaaq ju feeñ ak junub akum ndokkeel te jiital ci sunu kilifa ak Seex Muhammadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasar wa xafidahu wa satar wa asaxahu wa ammar wa rahima salafahu wa xafar lahum wa li man aamana wa aslama wa axsana wa lam yastakbir noo ngi leen di fàttali sunna sawar si na ci diggante weeru koor ak bisu iid gi di muurum koor mu toll ci saa te mooy ñeenti mudd ñu di ko génne ci lépp ci li ñuy dunde génne ko war na ci bépp jullit góor ak màggat góor ak seeni safaan ñoo ci yem ko ci am kilifa nag kilifa ga moo ko koy génneel ni ku ñuy dundal moo xam soxna la wala doom ju góor ba ba muy mat wala doom ju jigéen ba ba muy am borom kër walla ab lar moo koy génneel it ay waajuram buñ yërul am na ñu ne dagan nañu seet xayma ji ci xaalis génne bi ci rawatina bu gënalee kiñ koy jox waaye li cosaan te gën di sunna daal mooy génne ko ci li dunde ku gis faqir wala miskin du ko sañ a jox kaneen du ko sañ jox kaneen ci ñuy jox asaka bàyyi leen ndax ñu am luñ lekk ba duñ yalwaan ci bis bi na ci li ko taxoon jub te yonente bi alayhi wa alihi wasalaam farataaloon ko li ci des di seetal ki wooroon ci laxu ak rafas فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ñu dégg ci hadis bi hadis Ibnu Abbas bi ne ku ko génne jox ko ñim ko war a jox lu jiitu julli gi muurum koor buñ nangu lay doon ku ko def gannaaw julli ga mu nekk sarax ci sarax yi kiñ koy joxe na nekk as gor bu jullit summa zakaatul fitri saaun qad tajib ankum wa amman quutuhu minkum tulib min muslimin bi julli ayshi dahri wal tuuta xurran musliman la faqri wax nañu ne dagan na ñu génne ko lu jiitu koor gi bu dul ëpp ñaari fan am na sax ñu ne ci koor gépp lañ ko mën a génne waaye balaa génn gi egg ci war jant bi so ci bis bi mujj ci koor gi fi waxtu fi waxtu fi waxtu bi tàmbalee yemit ci sow jant bi ci bisub koor gi muxtaar mi nag te mooy fi gënee dale ci fi fajar di xare fi nga xam ne ku doon woor fi la war a bàyyee di tabayyunul xaytil abyadi min al xaytil aswadi min fajir yam ci julik nit gi fuñ ci kàbbara kàbbara bu jëkk rek ci julikaay bu mu mën doon muxtaar ma jeex na cee ñuy julee foofa loolu tax ñu sopp julli gi di naaj te naaj gi bañ a egg tisbaar ba muxtaar mi di jeex ku weesu tisbaar ba jant bi so nag te génnewu ko ci lu dul ngànt daa di gàddu bàkkaar ndax moo sàggan